ñu woowee kilifa ci diine euh, seen taxawaay ci askan wi ci njaboot gi ci taalibe yi loolu tamit nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax euh, dama am bis ma dem camp pénal comme ni ma ko doon defee ci at at mu ne ànd ak euh, njaboot gi ñu daan dem di fa taal lu jege fanweeri mbana nangam te leen daan wax na yi di wuute ngir ku ci ne ci ñoom jombul am na lu mu namm xewlu lool gëj na koo xewlu ñu waajalal leen tamit ay yére di ko yóbbaale ak leneen lu ca mën a topp lu mën a doon lu waaye mën a yóbbu rek yóbbu ko euh, muy ci góor ñi muy ci barabu jigéen ñi daa menn at am ku yuuxu ne sëriñ bi boo fi ñëwul woon ma xàcc ci sëriñ Tuuba euh, yëkkati kàddu googu mu yéeme lool mu ne ndax dafa tëdd gént sëriñ Tuuba ci biir barab bi waaye mu ne barab yu mel nii buñ fi nekkee dañ yittewoo di gis njabootuk Serigne Touba gi di ñëw dinu fi fekk si ndax nattu la imma da ngay tooñ dem fa wala léegi-léegi nattu dal ci sa kaw nga dem fa léegi nag barab yooyu léegi-léegi bu fekkee ne nun dañuy addu ci kàddu mag ñi te duñ fa faral di dem dafay mel ne ndonal li ñuy défendre ak a aar day mel ne ndonal encaissé addiye lay doon wala ndonal jekku donga yi lay doon wala ndonal bëgg lu jugee ci donga yi tàbbi ci sa loxo lay doon waaye ndono la da cay bokk même di fekki njaboot gi ca fa gën a xóot ci pax yi fa gën a xóot ci teen yi nga xam ne dañ caa tàbbi muy nattu yi di ko bokk ñoom léegi nag ñooñu xat-xat yi ñu nekk ci jamono bi dañu bëgg tamit kilifa gi wala kilifa yi di leen fàttaliku di leen wax ne ñoo ñooma bokk natt yooyu duñ ca yam dañoo war di dem di leen nemmiku di xam ci luñ nekk ndax day am ay association ak ay mouvement yoo xam ne dañuy taxaw di yëngu ci sociale di taxaw ci kanamu askan wi di leen fompal seeni rankoñ di ko bokk ak ñoom jooy ya di bokk ak ñoom naqar yi léegi-léegi dañuy seenu kilifa yi ci taxawaay yu mel noonu bu loolu amul buñ meree sët yi ci seenu doxin ak seen comportement entre ñoom ak donga yi entre ñoom ak ñi njaboote Eh, dañuy daal di jàpp ne kon lii mooy ndono li nga xam ni moom la fi maam yi bàyyi mu mel ne kon dafay mel ne rek euh, exploitation wala day mel ne rek euh, sa jubluwaay ak lii aar sa jubluwaay loolaa la tax a jóg fekk ne déedéet kon dafay jaadu fii nu toll jamono bi ak euh, fii nawet bi toll nga xam ne ñenn ci baykat yi seenu woon nañ ndox mi ba yaakaaroon ne sax du ñëw waaye ci ndimbalal yàlla ak mbaaxam ndox mujj am ba am ci ñoo xam ne dañoo dawoon tool yi ñu ci bari delluwaat nañ ci tool yi am na ci ñi nga xam ne amoon nañ ak jur jur gi euh, li mu taw ñax mi tàmbaleegu te sëq ni mu a sëqee ba ñu mën ko domp di ci xewlu am na ci jur goo xam ne ci loof lañ lañ lañ lañ faatu loolu taalibe yi dañuy nekk ci njàqare ñi dëkk ci àll bi nekk ci njaqare te ñi dëkk ci àll bi ñiy yaxantu ci biir euh, ville yi ñoo leen di faral di dimbali ci luy dem ca àll ba ndax baykat bu dundee lam jotoon a bay jubluwaat ci nawet euh, ndox ma doyagul nam war a doye ci ay bëtam xelam du dal mu nekk ci tiitaange ak njaqare jamono boobu dafay soxla ku ko dalal kuy wax ak moom ku ko jege su ko defee daal li may wax mooy dafay jot ci ñi ñu woowee ay kilifa te jaboote ci diine euh, lu nu gën a mën a yëngu ci sociale ak gën a mën a taxawu seeni njaboot ak di leen jege ak di wax ak ñoom euh, dafay jot ndax léegi-léegi ñu déglu nu ci rajo yi wala ñu déglu ñu ci tele yi wala ñu déglu ñu ci cérémonie officielle yi waaye dafay manqué léegi léegi taxawaay ci wet gi nga xam ne mooy wetuk donga yi rawatina waxuma donga yi am alal man seen bopp euh, ba noppi di ñëw ci kilifa yi waaye donga yi nga xam ne tey boo doon xool ña nga ci dëkk ya nga xam ne ñoo gën a sori ci biir Sénégal te ñooña mu leer la naññi ne la añee sax léegi-léegi boo leen yenduloon buñ la ko joxee jombul sax nga nga wuti leneen loo xewloo ngir defee ne sax jombaate na sa gémiñ wala jombaate na sa biir ñooñu tamit di leen bàyyi xel dafa doon lu am solo dafa doon lu am solo ñiy góorgóorlu ci wàllu diine ak ci wàllu daawa eh, ñooñu tamit dafa jaadu ñi di leen jàppale di leen taxawu ba seen daawa yooyu ñoom it ñu mën a eh, yeggale seen yéene ci woote yooyu nga xam ne dañ koy def te di ko defal lislaam bu ñu mel noonu amul nag njaboot yi dañuy jaaxle ba euh, dootuñu xam fan lañ jëm dootuñu am sax jubluwaay ndax dañu mel ne ku réer ndax fi ñu nekk léeg-léeg day nekk guddi wax set ci ñoom gu lëndëm këris dafay nekk léegi-léegi naaj wu tàng te duñ yori dàll euh, duñ yor tamit fu ñu seeloo naaj ñu am fu ñu seeloo ab taw su boobaa nag ñi ñuy woowee kilifa ñoo ñoo dox seen digganteeg état ñoo ñoo dox seen digganteeg ñàkk gi ñuy gu metti gi ñuy jànkonteel looloo dox seen digganteeg feebar du ñu faju looloo dox seen digganteeg ñàkk sécurité looloo dox seen digganteeg chômage bu bari looloo dox seen digganteeg njàng mu sooxe looloo dox seen digganteeg wopp doo faju yu baree baree baree baree baree bari loolu moo dox seen digganteeg rankooñi baadoole fu mu toll di siim cere yu buur kilifa yi lan moo ci seen taxawaay ndax dañuy bàyyi rek ay yeneen association ak yeneen organisation di taxaw toujours di mëne guerre yoo xam ne doonul guerru sànnente ay xeer waaye dañuy taxaw mat population bi ndey mat leen bàyyi di leen yiir ci fànn yépp di taxaw ci seeni bëgg-bëgg di leen jooyal seeni seeni naqar ak seeni tiis ñi tukki ñi ci biir réew mi ñi jagadi ñi amutum xëy ñum ci mën a doon ñi bëgg jàng jàng ba noppi te amuñu fu ñuy dugg yu mel noonu ay taxawaay lay doon yoo xam ne dafa war am ay organisation yoo xam ne ñi ñi woowee ay ay kilifa ci diine ak ñay balloloo ci kër yooyu dafa jaadu nag seeni ndaw taxaw wut ay kuréel yoo xam ne dañ koy saytu teg ko ci anam yoo xam ne dañuy taxaw ngir dimbali ñi nga xam ni amuñu benn yaakaar lu dul ci barab yooyu bu dul loolu nag dañuy yaakaar barab yooyu daw jëm fa ba noppi yaakaar tasee ca barab yañu daw jëm loolu rek man mooy euh, euh, li nga xam ne jàngat naa ko euh, te gis ne nit ñi ci këri diine yi Euh, muy l'islam ñu bokk ko ta fekk seeni wujur, ak seeni wayjur ak seeni kilifa taxawon ci taxaway bo xamni euh leral na lu bare bare bari ubbi nañ fu bare bari tabbal fa l'islam ubbi nañ fu bare bari dugal fa ngëm ak pos-pos jangale ngor jangale liñ wara jangale lepp jàngale lépp bu nu nit wacc yoon woowu wala jaarunu fan wara jaar dañu daal di ñi nga xamne ñom ñoy top mi ndax topp mi mook big bi topp règle bi ñoo yem bu règle bi jubee rek rëdd wi nga xam ne moom la ñu toftal ci règle bi dafay jub comme ni ñu ko taamoo comme ni ñu ko sàkkoo kon li gën a am solo daal tañ war koo bàyyi xel moom mooy rek euh, euh, kilifa euh, yi nga xam ne tey ñooy ndaw ñi nga xam ne ñoo maase a génération bi nga xam ne fi jamono toll Euh, dañoo war a taxaw temm ngir soutenir leen di leen jàppale di leen bàyyi xel sunu xeex ak sunu yitte ñëpp doon ñi nga xam ni néew doole moo tax ñu ñëw di confier seen bopp ci kilifa confier wuñ ngir nekk ab jaam waaye dañoo confier ngir ñu gën leen a gindi ci lislaam teg leen ci siraatal mustaqima waaye nag dox seen diggante bépp loraange boo xam ne mën nañoo àddu ba mu teggiku leen wala ñu wax ba ba mu teggiku leen xataa sax bu ci jëflante waree jëflante ba liy metti dal ci sa kaw te teraanga ji ak banneex ak jàmm ak tawféex ak xéewal bu ñëwee dal ci sa kaw njaboot noonu la Sëñ Tuubaa defoon sacrifier boppam ngir adduna bi sacrifier boppam ngir Sénégal sacrifier boppam ngir ummal islamiya noo ngi leen di jéggalu te di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.